nga tamit nit rek la ñu maam Kumba nit kese lañu mais après yàlla moo lay dimbali euh, parce que boo sañoon divorce yi nga am doo ko dund boo sañoon da ngay toog di sëy sa sëy comme say moroom mais nag loo xam ne def nga la la war et puis am nga ci conscience tranquille kit nga ak sa conscience non man awma ci problème des fois nag c'est c'est c'est naturel des fois tu te sens seul tu as envie d'avoir un mari yooyu mais bon ça passe après maam Kumba Sidi mënuma ko fay de ndax lii tax ñu naan salaire dëgg moom moo ma ko njëkk fay te fayuma ko parce que dama ko dama am expérience su télé wala ma am ma ay wala ma gën ay aay ñeneen non non mm. non daf ma ko fay mais xam naa ne yërmandee ngi ci woon xama nit bu amul cofeel ci moom xool ko bëtu doom yu bari doo ko mënal mm-hmm. même bu dee dalay liggéeyal kon yàlla na ma ko yàlla fayal 2014 jot ma dem Màkka mm-hmm. ñëwaat après non Sidi Sidi Sidi Sidi dafa baax Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass dafa baaxoon malheureusement nag nit ñi xamuñu ko ba mu génn àddina nit ñi xamuñu ko ba mu génn àddina loo wax ñu ne Sidi waxoon na ko jël ay audioom di teg te ndeysaan bi muy dund man mosumaa romb nit te neewu ma lay seen patron bee bëri xuloo bi mu deewee Sidi bëggoon na dundaat ndax gis li ko sénégalais yi waxal Sidi bind na livre am bu muy wax un incompris xaw ma lan waaye un éternel incompris loolu c'est tellement vrai si yàkkamti na jàkkaarloog yow ba tàllal la loxo ya nuyu la nit ku baax la moo tax bi mu génnee àddina bañ teg ci ay at xam nañ koy Sidi. Yàlla ko yàlla fay. man day gërëm naa ko sant naa ko man gërëm naa ko sant naa ko